am na yett yoo xam ne góor a jigéen ñoo ci bokk yam ku ca nekk mën nañ caa xàmmee sa kàllafee ba ci jëkk mooy gént génne maniyu ñaareel ba sax kawarug naq ñetteel ba am fukki at ak juróom-ñett bu dee ci yoonu Maalik da am nañu wax fukki at ak juróom bul fàtte ne kàllafe googu moom bokkul ci sarti wérub julli daa bokk ci sarti warub julli teqale woon nañ la ne la gone daañu ko digal julli nga xool nag araful xaddas yëkkati am toj mais mu njëkk wax te nu waxoon ne mooy su ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu bu ko tiim waree mu tiim yooyu moom dañ ko diisal lool su ko fàtte woon defut la war a def ci yooyu julli julli yu bare bari it yépp a yàqu yépp lay baamuwaat su fekkoon nag dafa tële yett yooyu moom da koy daal di wàcc ndax lu mu ci mënul rek mu daal di koy wàcc waaye lu mu ci xës man moom fàttegul tax ñu jégal ko ci dara lu mu julli woon rek te defut la war a def moo xam jàpp la moo xam sangu farata la moo xam tiim la fàtte ga tax mu julli ay julli yépp rek lay baamuwaat boo delloo ci sàng awra itam maanaam sàng lam war a sàng ci yaramam bu dee julli dañ ciy teqale góor ak jigéen kenn ku ne ci ñoom ñaar am na awra ju ñàng-ñàng joo xam ne su ko sàngut te tey ko te amoon na lum ko sànge julli ga du baax am nag jeneen awra joo xam ne ñàngaluñu ko moom bu ko sàngutit dañuy sopp rek mu baamu ca waxtu wa bu ñu nee rek li tàmbalee jumbax ba ca batiwoom bu dee góor mooy awraam am na googu teqale yemale wuñu diggante boobu lépp lépp buntu suuf bi ak sawukaay ba ak la leen wër lañu jàppe awra ju ñàng-ñàng la ca des nag te bokk ci diggante jumbax ak batiwoom moom lañ jàppe awra joo xam ne ñàngut ba noppi nag taxul lépp lépp yemoo àtte ndax njekkikaay ba mbaalu ca bokk ba dee julli bañ koo sàng daañu sopp moom góor gi mu baamu julli googee ca waxtu wa lu bokkul nag ca njakkikaay ba ni ki jumbax beeg la ko wër wala lupp yi jëm si ci woom yi bu ca dara dee feeñ itam du tax ñu sopp mu baamu ca waxtu wa jigéen nag dañuy wax ne yaramam yépp awra la ba mu des kanam gi ak tenq yi ak biir ñaari ndëggu ya awraam ja nga xam ne nag moom lañu ñàngal nga xam ne su ko mënee sàng te sangu ko rekk bu jullee julli ga du baax da koy baamu faaw faaw mooy la tàmbalee ca dënn ba ba ca batiwoom ya ak la tolloog loolu ca gannaawam loolu lañ jàppe awraam ju ñàng nga xam ne bu ko teyee am lu mu ko sànge te sàngu ko rek moom jigéen ji ba muy julli julli ga du baax la dale ca dënn ba jëm ca bopp ba ak li tàmbalee ci batiwoom yi jëm ca ndëggu ya lañ jàpp ne awra la ci jigéen bu dee julli na ko sàng waaye du awra ju ñàng awra ju woyof la nga xam ne bu dee julli dara ci loolu di feeñ rek julli ga dana baax waaye dañu sopp mu baamu ko ci waxtu wa maanaam bu waxtu wa jeexut na dellu julliwaat te sàng loolee waaye la dara ci dënn ba moom ba ca bëtiwoom ya muy ci kanam muy ci gannaaw mooy awraam ja ñàng-ñàng nga xam ne bu dee julli lu mu ci feeñal tay ko mënoon na koo sàng rek julli gën a yàqu faaw da koy baamuwaat bu ñu nee bu feeñalee awra ja wayaf dañuy sopp rek mu baamu ci waxtu wa na xam ne kon kat bu dee tisbaar ak takkusaan dañu sopp mu baamu leen ku mu ci mën doon ci ñoom ñaar bañ àgg ci isfiraar isfiraar mooy takkusaan yi suuf fa nga xam ne fa la muxtaarum takkusaan yam bu dee timis wala gee moom kum ca doon dañuy sopp ñu baamu ko ba fa seen daroor yi yam te mooy fenku fajar bu dee suba it dañuy sopp ñu baamu ko li feek daroor yoom jeexut te daroor yoom ma nga yem ca fenkuk jant ba tey nag jigéen war naa seetlu ne su nekkee jàmbur bu góor jàmbur bu góor mooy koo xam ne araamut ñu sëy ñoom ñaar kon moom jigéen ji yaramam lépp la war a sàng ba mu des kanam nga ak teng ya ak biir ndëggu ya su fekkee nag nekkut ak ab jàmbur bu góor toogul foo xam ne ab jàmbur bu góor mën na ko faa fekk génnul jëm fenn niki kamu toogal day koo xam ne mënuñoo sëy niki magam ju góor mbaa rakkam ju góor mbaa baayam mbaa maam ju góor ak daal képp koo xam ne rek araam nañu sëy ñoom ñaar kon lam sañ a feeñal moom jigéen ji moo di la tàmbalee ca dënn ba ba ca bopp ba jëm ca kaw ak di tàmbalee ci bëtiwoom yi jëm suuf nde du sañ a feeñal dara lu bokk ci la tàmbalee ca dënn ba ba ca bëtiwoom ya di tàmbalee dënn ba ci bëtiwoom moom faaw rek war na koy sàng doonte sax góor ga mu bokkal toog da di baayam mbaa maamam ju góor mbaa keneen koo xam ne rek mënuñoo sëy ci yoon bu dee nag jigéen ji ay moroomi jigéenam rek la bokkal toog te ñu di ay jullit ne moom kon la dale ca jumbax ba ba ca batiwoo mi rek moom la war a sàng sañu koo bañ waaye lu bokkut ak loola mën na koo bañ a sàng gone gu jigéen nit bu tolloo ci juróom-yaari at jëm kaw daañu sopp ci moom mu soloo ne mag ñi soloo li taxul sax mu war ko kon nag danga wax na sart julli ba noppi mu jàll si ci faratay julli yeeg sunna yeeg ngëneel yeeg ya ñu sib ca julli ak ya yàq julli bunt boobu ci la bëgg a dugg baabu faraidi salaati lii mooy buntub faratay julli wa sunaniha ak ay sunaam wa fadailiha ak ay ngëneelam wa makruhaatiha ak ya ñu sibam maanaam ya ñu sib ca moom lu ñu sib mooy loo xam ne soo ko moytoo bañ koo def ñu fay la tuyaaba ci moytu ba nga ko moytu waaye boo ko defee itam nag du tax nga am ca bakkaar mooy safaanub ngëneel ngëneel moom mooy loo xam ne dañ ko caa sopp nga xam ne def ga lañ ci gën a taamu boo ko defee ñu fay la tuyaaba ca def ga waaye boo ko bàyyi itam nag doo am bàkkaar ca bàyyi ga wa mubbu tilaatiha ak way yàqam moom julli dañuy wax itam yi nga xam ne ñooy yàq julli faraidu salaati faratay julli isna hashara fukk la ak ñaar nga xool noonu mu bindee isna hashara nga xam ne par nga jàngale am sa gi ndax wayu jub tayit néewut isnata isna rek la bind faniyatun mooy yéene moo tabaratun judi juñ xalam bi qalbihi ca xolam ba faratay julli yi li mu ci wàññi fukk ak ñaar rek la wax te daañu ko wàññi ba ci fukk ak juróom ba ci fukk ak juróom benn bim jëkk wàññi mooy yéene yéene nag mooy dogu rek ci julli julli googee bu dee julli gu teew mën ngaa wax ci sam xel rek ne yéene na maa julli gii daal di wax allahu akbar fa saasa saa yoo dogoo ci julli julli sàngam daal yéene nga ko du aajoo nga di ko wax ci saw làmmiñ lu may nag nga xam ne soo waxul sa làmmiñ ne yéene naa julli sàngam sa xel di jax-jaxi ci yéene nga am yéene woo kon mën ngaa wax yéene ja waaye bu dul loolu rek duñu taamu mukk ngay tudd yéene taaniyuha aji ñaareelu seen takbiratul ihraami mooy kàbbaru xarmal lil faddi ñeel kenn wal ma'muumi ak ma'muum wal imaami ak ilimaan kàbbaru armal mooy allahu akbar bi ngay njëkk wax ci julli farata la moo xam da ngay julli yow dong moo xam da ngay jiite moo xam da ngay ànd ak kenn mu lay jiite taalisuha aji ñetteel seen xiraatun moo di jàng bilhamdi ci fatiha xalal imaami ca ilimaan ba waxdahu moom rek wal fardi ak kenn ka jàng fatiha farata la waaye nag ci boo dee julli yow dong wala ngay jiite te bu dee ci yoonu maali moom boo xasee am ku lay jiite yow jàng fatiha nekkatul farata ci yow duñu taamu sax jamono ya muy biral moom sa ilimaan yow itam ngay jàng dañoo bëgg bu sa ilimaan dee biral yow nga bañ a wax dara kon kenn kuy julli jàng fatiha farata la ci moom ilimaan ba tey noonu waaye nag bu xasee am ku lay jiite moom jàng fatiha nekkatul farata ci yow bu ilimaan ba jàngi rek jàngaale na la te bu dee biral nag bul wax dara ngay def patt rek déglu ko bu dee yolu nag ñi sopp ngay jàng ci suuf ndax sam xel bañ a dem ci leneen tuma qiyaamun topp taxaw fiihima ci ñoom ñaar in tastati ndem da nga mën taxawaay ba kàbbaru xarmal bi ak jàng ji fatiha lu ci nekk su fekkee mën nga koo def taxaw kon taxawaay boobee farata la soo toogoon kàbbar kàbbaru almal bi wala nga jàng fatiha toog te fekk na mënoon ngaa taxaw kon bàyyi nga farata julli ga du baax tu mastinaa dun topp wéeru aw juloosun wala toog fadd taji na nga tëdd daa bëgg a junj ne su fekkee ne mënoo taxaw taxawaayu jonn jonn bañ a wéeru ci dara dara kon dañuy seet bu fekkee mën ngaa taxaw nag wéeru kon nga taxaw wéeru su fekkee taxaw wéeru sax mënoo ko nag nga door a toog te bañ a wéeru su fekkee toog te bañ a wéeru itam mënoo ko li nga mën mooy toog ba noppi wéeru nga toog daldi wéeru su fekkee ne ab toogaay mënoo ci dara tëdd rek moo des nga door a tëdd kon da nga koy tegalee nii da ngay wax ne taxaw te bañ a wéeru ci dara mooy jiitu taxaw nag boole ci wéeru topp ca toog te bañ a wéeru topp ca toog te boole ci wéeru topp ca bu tëlee lépp toogaay nag door a tëdd tëdd ga dañuy wax ne dañuy sopp mu tëdd wetug ndeyjooram moo gën tëdd wetug càmmooñ bu weesoo wetug càmmooñ nag jaaxaan topp ca lañuy bañ nag mooy defeenu su fekkee ne mën naa tëdde ak wet mbaam mën a jaaxaan ba noppi nag defeenu julli ga du baax su fekkee mën naa julli taxaw te du yóoru ci dara mu bëggul ko noppal tax ba muy julli mu wóoru ci loo xam ne sës na ko dooleem ba bu loola daanu woon mu ànd ak moom daanu kon julli ga day yàqu su àggee ci mënt taxaw ba day toog it noonu la day toog rek te bañ a wéeru su fekkee ne mën naa toog julli bañ a wéeru mu julli wéeru ci loo xam ne sës na ko dooleem ba bu loola daanu woon mu ànd ak moom daanu ba tey julleem googu yàqu na nga takk foofu nag ne su ma nee julli toog mu far bàyyi toog ga daal di tëdd julli ga daal di yàqu su fekkee ne mën naa julli jaaxaan ni ma ko waxe woon léegi itam moom mu defeenu julli ga day yàqu jaaxaan ak defeenu lu ci nekk tëdd la waaye su ma nee jaaxaan mu bàyyi ko defeenu rek julli ga yàqu su ma ne ab toogaay itam mu bàyyi toogaay ba tëdd it ak nu mën di tëdd rek bàyyi toogaay ba julli ga yàqu am na nag sew sew bu ñuy faral di feeñal foofu mooy su fekkee ne taxaw wóoru rek la man mu bàyyi ko nag léegi toog te bañ a wéeru am nañu ne julli ga day baax ndax ndegam bu taxawee faaw day wéeru te bu toogee moom du jar muy wéeru kon taxaw ga te wéeru day gën rekk toog ga te bañ a wéeru waaye su bàyyee taxawaay boobee nga xam ne wéeru mënu caa ñàkk toog bañ a wéeru itam du tee mu baax tëddi nag wetuk ndeyjoor ak tëdde wetuk càmmooñ ak tëdde njaaxaanaay nag moom tegalee ko noonu dañ ko sopp rek su ma ne tëdde wet ndeyjoor bàyyi ko tëdde càmmooñ du ko tee baax su ma ne tëdde càmmooñ bàyyi ko jaaxaanit du ko tee baax bu tëddee njaaxaanaay nag ay tànkam lay jëmale xibla bu tëddee nag defeenu ndax daa mënta ñàkk kon boppam mooy jëm xibla foofu am na teqale kon te mar rukkooxu topp rukkoo wa sujoot ak sujoot faa la man na nga leen xam day wàññi farata yi ba tey mu ne rukkoo farata la sujoot ba tey farata la warafuwu akuk siggéem min kuli rukkunin ci bépp ponk min huma ci ñoom ñaar siggee ca rukkoo ba ak siggee ca sujoot ba lu ca nekk farata la wattaasihu aji juróom-ñeenteel ja aljulloosu mooy jataay ba li salaami ñeel salmal ba wa bay na sajida tey ka ak diggante sa ñaari sujoot bi tamaami ànd ak mat ga day wax ne booy wax asalaamualeykum nga nga toog te bañ a taxaw bañ a tëdd farata la boo doon wax asalaamaaleykum jóg di dem mbaa nga tudd wax ko julli ko yàqoo ndegam mënan ngaa toog ba tey moom daa wàññiwaale jataay bi nga xam ne mooy dox diggante ñaari sujoot ñi boo sujootee benn sujoot nga del siwaat toog ba ne tekk door jàll sujoot bi ca des da ko wàññiwaale ci farata yi fu matt ma inna topp na nga dal fi salaati ci julli ga waxtadil te nga yemoo waxtim te nga mottalee bi taslimin ci ab salmal bi al ju ànd ak al kayitam tasi la ngir nga topp ndigal li ñuy wax at ma niinatu ak dal farata la ci julli mooy ponk boo toll na tekk ba cër yi dal nga door a jàll ca ba ca des soo yàkkamte yàkkamte bu mel ne picc muy for rek mu gaaw loolu loolu defoo tekk jooju rek julli gi yàqu yemoo itam farata la yemoo nag mooy cër yi jub xocc nga xam ne yemoo akuk dal wuute nañu te yom ba teqale ndax dal mooy cër yi def tekk yemoo nag mooy cër yi jub yemoo mooy boo siggee ci rokoo bi ñu wax ne sig gi farata la siggi boobu da ngay àgg ba taxaw jonn ba cër yi jub mel ne ba nga sëgg gutoon ba tey boo sujjootee ñu wax ne siggi ga farata la siggi googu da ngay dellu ba mel na nga meloon ba nga sujjoota gutoon loola mooy yanti daal yemoo ga yemoo googu boo ko bàyyi rek bàyyi farata su fekkee da ngaaru koo da ngay siggi ba taxaw jonn mel na nga meloon ba nga sëgg gutoon su fekkee da ngaa sëgg su jootit noonu la koy wax asalaamaaleykum it na nga jub xocc cër yi maase nga wax asalaamaaleykum ba tey wax nga asalaamaaleykum farata la sëlmal bi nekk farata nee nañu boo nee salaamun aleykum du baax baaw rek nga ne asalaamaaleykum yooyu la jot a wax ci faratay julli yi defe naa du jar lu ci guddal ndax jàng nañ ko ci ay téere téere baamu ko ay yooni yoon mu jàll si ci sunna yi mas nuunuha lañu sunnaalam salaasu ashrin fukk laa ñett fanqul na nga toxal sunnay julli yi nee na fukk laa ñett gis nga ne moom it daañu ko wàññi ba ci fukk ak juróom-ñett moom nag fukk ñett rek la wax fa suuratun aw saar fi rakxatay ni ci ñaari rakk ya al uwali ya di way jëkk jullik farata gu ne ñaari rakk ya ci jëkk nga jàngale ca aw saar mbaa dara ci alquran lu bokkut ak aw saar doonte jenn laaya la wala ay laaya loolu sunna la bu dee ci yoonu maal nag moom lañ gën a taamu mooy ràkk bu jëkk ak ràkkab ñaareel bu ne nga teg ca aw saar wu mat tàmbalee ca njëlbeenu saar wa ba fa mu yem mu bañ a manqué aw saar bañ caa doon leneen lu bokkul ca saar wa bañ a boole itam yaari saar di ko jàngandoo ci benn ràkk ndegam julli ga julli farata la bu dee julli sunna nag moom mën ngaa boole ay saar yu saar wala jëxru ak biral ga wasiru ak yalu ga maanaam fu ñu la diggalee wax ca kaw ci boo dee julli wax nga ca kaw sunna la fu ñu la diggalee yelu wax ci suuf ba tey nga wax ci suuf sunna la biral ñu ngi ko diglee ci ñaar rakkay suba ak ñaar rakk njëkk ci timis ak ñaar rakk njëkk ci gee ak ñaar rakkay ajjuma yelu nag dañ ko digle ci léppi tisbaar ak léppi takkusaan ak benn ràkk ba mujj ca timis ak ñaar ràkk ña mujj ca gee wa min qiyaamin ak ci ab taxawaay bu ñu nee gannaaw boo jàngee faatiha ci ràkk bu jëkk ak ci ràkkab ñaareel nga teg caw saar saar woowu sunna la xamal ne taxawaayu jàng saar wa itam sunna la wa kulli takbiirin ak bépp kàbbar siwal ihraami ndare kàbbaru armal ba bépp allahu akbar bu ñuy wax ci julli rek sunna la ba mu des nag allahu akbar bi jëkk ci julli dañ ko wax kàbbaru armal moom waxoon nga ne farata la wa sami allahu ak samiha dégg na allahu yàlla li man ñeel ko nga xam ne xamida sant na lahoo ñeel ko xalaa imaamin ci ilimaan waxdahoo moom rek wal munfaridi ak aji wéet siggee ci rukkoo mu wax samihallahu liman hamida sunna lay doon ci kaw mu doon kuy julli moom dong wala muy jiite waaye bu fekkee ne daa am ku lay jiite boo rukkooyee ba siggi da ngay wax yow rabbana walakal hamdu mbaa nga ne allahumma rabbana walakal hamdu ku lay jiite moom mooy wax samihallahu liman hamida waaye boo la julli yow dong moom boo rukkooyee ba siggi sunna la nga wax samihallahu liman hamida boo doone ilimaan ba tey noonu wayun situ dana xerawlu ba dana noppi ne pat al ma'mumu ma'mum ma xaalal jëhri ci waxtu biral ga bokk na ci sunnay julli bu dee ci yoonu malik bu sa ilimaan dee biral yow nga ne pat di déglu am njàngam te bañ a wax dara boo sori woon nag ba doo dégg am njàngam mbaa danga tëx ba doo dégg am njàngam du tee rek lay sunna mooy ndegam daa toll ci waxtu biral yow nga ne pat bañ a wax dara bu dee wax ci suuf nag muy yelu ñu sopp yow itam ngay jàng di wax ci suuf ndax sam xel bañ a nekk ci leneen wajhar na nga biral bi taslimil xuruji ci salmalub génn ci julli ga fadri na nga xam asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata mooy tax nga noppi ci julli gi nga biral ko bañ ko yelu maanaam wax ko ci kaw bañ ko yelu sunna la rudda na nga delloo asalaama salmal ba lil imaami jëm ca ilimaan ba waxalaaman ak ci ka nga xam ne bin yasaari nekk na ci càmmooñ in xasala ndem amal na rukkoo xan ab rukkoo mu jublu ci ab rakka gannaaw boo waxee asalaamaaleykum muy sa farata bu fekkee am na ku la doon jiite muy sa ilimaan sunna la nga delloo ko asalaamaaleykum waaye boobu nag danga koy wax ndànk te bañ koo wax ca kaw ni ngeen toogee woon di julli itam bu fekkee am na ku la féete woon ci càmmooñ te am na ci julli ko lu matub ràkka kon sunna la nga wëlbatiku wax ko ndànk asalaamaaleykum su fekkee nag amul kenn ku la féete woon ci càmmooñ mbaa am na ku la féete woon càmmooñ waaye amul ci julli ko lu matub ràkka kon doo ko delloo ab salmal wa sutratun ak satir lil fazi ñel kenn wal imaami ak ilimaan in xashiya ndem ragal na almuroora romb ga min amaamin ci njëx kenn rekk kuy julli wala ilimaan muy koy jiite su ragalee ne balaa julli ba salmal am ko romb ci kanamam kon daañu sunaal ci moom mu wut li ñu wax satir satir mooy am lu mu samp ci kanamam mbaa mu tëral ko loo xam ne lu mu gàtt-gàtt na gudde ne ab xasab lu mu sew-sew na dijje ne yet wu dijj te bañ a taq seen sobe bañ a def li yëngatoo ko dal bañ a rafet lool mbaa mu ñaaw lool bay jax-jaxi xelam de sax bu fekkee ragalul kenn ku romb ci kanamam kon duñu sunaal ci moom muy wut satir ma moom itam mooy ki nga xam ne am na ku ko jiite kookee koy jiite rek lañuy digal su aajowoo satir bu wut ko waaye moom mi nga xam ne dañu koy jiite rek muy maamoom ilimaanam doy na ko satir nañuy moytu nag di jullee foo xam ne aw yoon la nga xam ne dañu fay romb su fekkee am nga feneen daal bul jullee foo xam ne aw yoon la dañu romb ci sa kanam boo jullee fu mel noonu am ko romb ci sa kanam te moom foofa rek la am te mënta ñàkk jàll tax mu romb ci sa kanam moom du am bàkkaar waaye yow ndegam am nga feneen foo mënoon a jullee da nga am bàkkaar nee nañu nag bu ñu nee kuy julli day araam nga romb ci kanamam ndegam am nga feneen foo mën a jaar lañ jàpp ne mooy urumi kay julli ba sa ñëw caa jaar mooy la tolloog fa mu taxaw ci yaari ndëggoom ak fa muy dëpp ab jëxam muy la tàmbalee ci fa muy taxaw teg fa yaari ndëggoom ak fa muy dëpp ab jëxam loolu mooy urumi kay julli moom la sarabina war raa jiixu an xarimal musalli allazi yumnau al mururu bihi liman lahu manduha ما بين موضع قدميه وموضع جبهته للسجود والجلسة أك جتايبة الأولى بجك وما أك لنغا خمني قد ساد دولكنا